carré bi ab wërngël ci suufu ah ah. très bien rëdd wu taxaw ci suufu koñ ñeent bi ak rëdd wu tëdd ci suufu ndëgju ndëgju mbege gi silent ndëgju ndëj mooy numéro ba tey olof da ko da olofal fii ne numéro mais limaatu tamit bi la limatu dama jum limatu dawalkatu welo bi gën a gaaw waaw limatu bi xam naa certainement mi ngi ci terminologie rangaleel lim tàmbalee ci bi gën a ndaw jëm kaw boo noppee ci loolu nga dugal leen ci këral ak lim yi première phrase bi defal ab croix ci suufu koñ ñeent wala carré bi ab wërngal ci suufu mbege gi rëdd wu taxaw ci suufu koñ ñeent bi ak rëdd wu tëdd ci suufu ndëgju ndëjju mbege bi euh,

devant vos camarades. waaw Modou et Awa Modou virgule da dafa leen di joxoñ woo leen da leen di woo. après on va aller chercher. Cette phrase, troisième phrase, cette phrase se termine par un point d'interrogation. Dans nos pratiques de classe, on le dit tous les jours. Cette phrase se termine par un point d'interrogation. ñu ne kàddu ñu ngi ko daanalee tomb laaj sept euh, bon moi je m'appelle El Hadj Mbengue je suis le directeur de l'école élémentaire de Ngathie Naoudé IEF Guinguinéo formateur relais tey ñi ngi daje fii ngir euh, dafa am lu ñuy wax MOEPS mooy modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal ñu def ay lël yoo xam ne dañ ciy former directeurs yi ndax njàng mi nga xam ne ni Sénégal léegi njàng wolof dañ koy jàng di ci gëstu xam-xam mooy wolof muy joola muy soninke muy séeréer muy alpulaar maanaam juróom-benni langue daal au Sénégal ñu ciy tàggat directeurs yi nag juróom fan fii pour won leen naka lañ koy jàngalee ci biir classe yi. donc euh, waaw bu ñu noppee ci directeur yi dañuy jël maître CP yi bu ci toppee jël maître CI yi waaye daal ñu war a xam ne fi mu ne nii Sénégal jël na loo xam ne dootu ci dellu gannaaw mooy maanaam làkk yi moom lañ fexe ba nga xam ne dañ koy dugal ci daara yi te loolu gën naa dëgër daaw te day day day day day day continuer danañ ko def ci jàng lakk waaye danañ ko def tamit ci xayma ci mathématique ak ci science waaye loolu nag ñëwagul ci kanam lay ñëw donc loolu nga ñu a dugg voilà leen wax rek ne seen xel dal ndax tey jii xam nañ ne bala ngaa mën a gën a am xam-xam nga jaaree ko ci sa làkk sa làkk boo ci jaaree di nga mën a liir tubaab di nga mën a gën a xalaat te sa euh, sa sa xarala dana gën a ñoŋ du tere tamit français bi ñu ngi koy jàng waaye duñ ko bind bu ñuy door waaye ci ñaareelu classe bi mooy septe français bi dañ koy tàmbalee di bind te incha allah nekk na loo xam ne ni programme bu ñu am yaakaar la ndax niñ ko tëralee dafa dëppoog ni ñuy jàngalee ci li gën a njàngale mi gën a mucc ayib ci àdduna ci noonu lañ ko dëppalee. kon mën nañu ci primaire bi commencé sixième jëm jëm ci kaw ci primaire bi lay commencé CI waaye ca Tamba Kédougou ñi ngi def ay lël yoo xam ne ñu ngi fay xalaat nan la ñuy defee ba préscolaire bi ñuy dugg cinq mu am benn jéggi pong boo xam ne dañuy articuler ñaari classes yi pour mu ànd loolu nag. dina dina feeñ léegi. waaw li ma ci daal mooy li nga xam ne directeurs yi ak enseignants yi ñoom ñëpp nañ gën a gëstu xam mbir mi nan la demee ba pare de euh, wax ceeg parents yi ba pare jël engagement njàng mi ñoŋ maanaam ñu def un enseignement de qualité loolu lañ bëgg nit ñi def ko te autorités yi yaakaar naa ne danañ ci jàpp ndax xam nañ solo.